jërë jëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi seetaan seen buzz euh, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi ànd ak euh, seen buzz. tey nag euh, dama laaxarti jëmm ji ñaan soxna Bintu Maam Seydina Limaamu Laay dama laaxarti borom xam-xam dama laaxarti borom ndox borom suuf mais tey li njëkk lu ñuy waxtaanee ak moom ginnaaw bi mu nuyoo ba pare mooy ci wàllu actualité surtout li nga xam ni mooy bésu Serigne Touba bi ñu génn muy wàllu màggal gi nga xam ni jóge nañ ci alors. gis nañ ci ñaari at yi am na lu ciy jot di xew euh, dina ci wax tuuti rek muy soxna soose ñu naan soxna Aida Diallo moom am na lu ko ci yàlla wan ci lu gis loo xam ni fa yéene ko fësal fii ci àdduna mosul génn fenn musul feeñ musul wax fenn ñu bàyyi ko mu nuyoog ñu koy seetaan fii ci seen bës. salaamaaleykum maa ngi nuy ñëpp di gërëm ñëpp di sant yàlla di julli ci yonente bu tedd bi di ziyaar ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla may jàmm defal ñu ko na ko yàlla defal mag ñi ak ndaw ñi barki Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam. ñu gis ni ñaari at yi ci bisub Serigne Touba gi ginnaaw biñ ci duggee bisimilah génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ñibbisi nañ ci jàmm ak salaam. am na coow liñ ciy far di dégg ci ñaari at yi muy soxna suñu naan soxna Aida jàlloo te nga ni am na loo xam ni bokkul biir tuubaa ndax sëriñ Mountakha mu baax ma. yàlla dénk ko muy wàlliw doon sëti Serigne Touba foo ko fekk day ree alors am na loo xam ne baaxowul biir Touba lan nga ñu mën a wax ci soxna si. waa maa ngi sant yàlla di julli ci ba tey yonente bi rek. di gërëm maam borom Touba. di gërëm sëñ Muntala. di gërëm soxna Baali. mu sëñ Abdoulaxaan Mbàkke sama xarit boobu sama xarit sama soppe. tubaar fakkaal la macha ñi war a wax waxuñu ñi war a feeñ feeñuñu. soxna de Diallo nag li ma yàlla woon ci moom dafa war a dellu ginnaaw moytu boppam bu baax a baax a baax a baax ndax sët yi waxuñu sëtaat waxuñu kon nag ñi nga xam ne dañu ñëw rek ñu boole woon rek seen i jëkkër nañu régler seen i boppa dellu ginnaaw man loolu laa am ci lu may wax si Aida Diallo ok euh, gis nga ñu ne nga ni euh, dafa war a dellu ginnaaw parce que am na lu la yàlla won loo xam ni ci sa wàllu xam-xam ci wàllu rab ak seytaane ak jinne nga ni waxantuwuloo am na lu la yàlla dénk loo xam ne su reculewul de musiba dina ko daal mu mel ni dañoo gis ci moom ak ndëgër bopp maanaam gis moom ak tere mu bañ parce que dafa mel ni fa mu jàppoon daawaati jéeg ak daaw ba ren ndax dégg nañ ni mu ne Cheikh Béthio moo na ko di nga gis lu ne waaye jàppal fi nga jàpp lan lay nuru. waa loolu lépp dëgër bopp la ak fit dëgër na bopp am naw fit waaye bu dellu léegi man bintam maam sëy di maa wax li mu mel ni dafa am lu la ci yàlla woon loo xam ni bu dellul ginnaaw dina laal suuf maanaam ci naka. waaw mu mel ni moom comme dafa dëgër bopp. waa kër Serigne Touba Mbacke du ñu moroom waxuma laa sëñ Mountakha. sëñ Mountakha sëñ Mountakha. yàlla na fi yàgg te wér. Aïda jàlloo na réglé boppam mënu la defanteex ñooñu. sëñ Mountakha. moo xew si jamono. moom la yàlla ne moo xew. moom la sëñ Touba de moo xew góor góor ay ilif waaye jigéen du ilif waa kër sëriñ Touba Mbàkke yéen en tant jigéen for ngeen ci sax di gis ay wàllu image yoo xam ni ñu ngi koy faral di wane gis nii dafay mel ni kuy takk ay sëy wala mel ni ay nit di sukk ci moom di jébbalu di def yow xam ni musul kenn musul xalaat loolu dina am Touba te musu fa amit ndax yoonu sëñ Touba kenn mënu ko yàq nga ni sëñ munta mu baax ma foo ko fekk day ree foo ko fekkul xamul lu lu baax tey lan ngeen gisee ab soxna soo xam ne tey ba léegi yéen a ngi dégg ni kay mi ngi takk ay sëy ndax foofay du place am. jigéen du doon imaam de imaam góor lañu ci xam jigéen jigéen du takkab sëy de bu naan takkab sëy kay góor ñee waral ñu naan dem jàkka. jiite ima góor mooy jiite rayam xar rindim xar waaye jigéen waroo rindim xar kon mënula jiite kenn kon na dellu ginnaaw na moytu boppam dellu ginnaaw lu ma yàlla wan la lu ma rab day la bu deful ndànk dina pëtëx la ilaha illallah d'accord euh, soxna bintu maam Seydina Limaamu c'est-à-dire beneen bi ma bëgg ñu ñëw ginnaaw màggal gi wax nga ko sëñ Muntaxa euh, mu mel ni yenn sëti Serigne Touba yi ku mel ni soxna Baali Muntaxa ña ngay xam doomu sëriñ Abdou Karim doomu sëriñ Fall wala seen i sët dëggoo leen ci dara. ñooñu dañoo màndu seen maam mooy xaadim rasuul maam borom tuubaa mu baax mu tedd da moomu kooku ay sëtam yëpp a teey ñëpp a tedd na leen yàlla defal jàmm may leen wér ndax man bintam maam Seydi bu ma demee bay seet di faj maam Baay Laay moo ko waral. Mm-hmm. moo ma may xam-xam ne ma bu ko leeralal kenn boo gisee nag ma dugg ci tale bi wax ji bari na coow li bari na ku ne naa mën a ku ne na faj jinne ku jinne jox moo mën a faj ku rab jàppa ku jinne jàppa ku rab sampa ku sampa aw rab bu la rab joxul dara bu laal yëfam binta maam Seydina nag yàllaa ko jox ak rab Euh, yàllaa ko jox ak rab binte mu maam Seydina Limam mu Seydina Essa nga sosoo fii ci ndakaaru li nga jot a wax ci wàllu actualité nga bàyyil ma xel pour ñu lay seetaan alors euh, nga sosoo fii ci ndakaaru nekk diggante yoof Cambérène ak mbaaw ci wàllu xam lu bëggoon xam bi nan la la dikkee parce que wax ko léegi borom xam yi dañu bëgg a bari ci réew mi euh, nga ne ñu war a wax rek ñoo war a wax comme ñoo noon noppi tey ñoo war a génn pour wax ñu bëggoon a xam xam-xam bi nan la ñëwee ci lu waral bintam maam Seydi li waral bintam maam naa Issa waa bintam maam naa isaa bu ngeen ko déggee li tax ñu duma oowee bintam maam di man dama daan peetaaw yor ñaar fukki peetaaw dëkk bu na wàcc naa fa si peetaaw di wër waaye ba ma yàlla nammee dimbali dëj ma ak Seydina Limaamu Laay ak taawam bi nga xam ne mooy janti jantay imaami imaami yonentay yonentay di maam Seydi moo tax ma ñëw tudde sama boppa bintab maam Seydina Isaa ndax bintab maam Seydi bu ngeen ko déggee binta caw sekk mi jur Baye Mbay Fall mu jur binta Sarr ñu naan kaa bintab maam Seydi 11 laay dugg ci ay xàmba bi ma amee 11 ans sama maam di ma yónni si soow bu ma daan yónni soow doo wax sooy bale doo wax booy wax ak maam yi doo wax tey raba ma jox li ma yor onze lama sama maam binte cew sekk yaayu baay mbay faal di dugal ci ay xam tey maa ngi faj ku rab jàpp maa ngi faj ku mënula am doom. laay taxaw foofu tuuti yaa ngi faj ku mënula am doom mais wax nga ko léegi euh, soxna Bintu maam Seydina Limaamu euh, ci wàllu seet. d'abord avant faj bi nee nga seet sax ku mënula faj rab wala ku rab jàppul wala donduwuloo ko mënuloo seet te yow dañuy gis ni wax nga léegi bàyyi nga petaaw di seetee lu ñu naan ndox ak suuf mm-hmm. est-ce que tey dina jur koo xam ni nekkul fii am na soxla wax nga ko ci jamono yu la passé nga ni damay tiim ndox mi jàkkaarloog yow te lu ma la wax du dañ. bu neexee yàlla ak yonent bi su ma tëddee nelaw yàlla dana ma ko wan rab dana ma ko dey kon maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi yàlla ma jox xam-xam bi raba ka dëggal maryaama ka dëggal dëkk sànga maar sa subi ngóor mu yànde juuf maam ma doy jaañ mbaaw maam ngóor borom xeej bi ak sama barab maam bi nga xam ne nag loo ko joxam soow doyul mu naan kooku moom dalay daal di teg si yoon fii ba Europe fii ba États-Unis Espagne ak foo mën a nekk Angleterre des fois ñu dégg sax ni euh, ci say wàllu sarax ba tey day ëmb ci wàllu seet gi léeg ngay seetal nit gis si moom sarax des fois sax dañuy am ñuy for forne ñu xam nañ ko du sori des fois mu su xuu xuus si seet gi ba mu yàgg na la defal sarax sàngam mm. mu mel ni loo xam ni na la wala rab bu la dee na la kii lii boo ko téye. waaw loolu lépp da rab dala koy wan rek wala mu dey la ko mm. wala boo xësee bay seet sarawaan taxaw na di la dey li nga war a wax diw li nga war a wax nit ki yëpp rab rek moo la ko mën a wax yàlla suñu borom moo koy leeral mais rab dafa am fa am rab yoo xam ni nag waxantuñu dañu gëm yàlla gëm yonente yi force yàlla suñu borom loolu rawaan bu mag a man rawaan bu ndaw manu ko kon bintam maam Seydi du ko ndaw bintam maam Babacar du ko ndaw bintam maam Mandione du ku ndaw bintam Baye Ousseynou laay du ko ndaw nee nga ñu bari dañuy faral di juum léeg-léeg nit nekk ci kër am problème mu doom wala mu nekk ci dara liggéeyam taxaw ñu ne dañ koo liggéey alors que rab moo gant moo yàq loolu yëpp. loolu rek rab a kay def rekk loolu lépp. dañuy juum. dinga juum di si nit na diw yaa liggéey diw fekk rab waa ñëw rek baare lépp. boo neexalee nag rab wa ñu wax la sarax bi nga xam ne moo ko mën a gindi nit ka gindeku nga am bàkkaar hmm. bu ko defee yow nga am bàkkaar Assane moo ma liggéey Assane liggéeyu la yow da nga am rab rab du ku ñu ndëppal rek du ku ñu sampal rek kuy dund am nga rab ku dem saw yoon saw rab dem na. ok euh, pour tënk ci wàllu émission bi rek lu bariwul cest dire beneen point bi ñuy ñëw euh, dinañ ci ñëwaat yow mooy li nga xam ni moom mooy problème mu doom ëmb nga ko léegi ci wàllu rab euh, xale yu bari dañuy sëy même yàgg ñu taxaw wala nga gis koo xam ni musul am dara fu ne dugg na fa di faju alors que dafa mel loolu la rab da kay def dinañ la maye doo neexal sa rawaan rawaan ba nag mu bàyyi la koj la sa ba ngay sëyax sa jëkkër mu yàq lépp booleke lépp nga mer fekk yow sa rawaan moom nga tàggoowul su sama ñun lébu yi xam nga dañu am ay àndandoo judd si ay àndandoo suñu la mayee war nga neexal say maam bu ko defee ñoom ñoo lay jiitu si sëy bi ñu mën laa ubbi nag nga jaboot mais boo leen ci boolewlee ñu toog fa lay téye seeni seeni loxo jàpp seen jàmbur. mooy waral ngay dugg fu ne rek yëf taxaw fi mu taxaw rek. mooy waral fu ne nga dugg fa mu ne pat. jàpp ak njàmburam boo ko neexalee nag mu ubbi la man Binta Baye Seydi. Mhm. maa ngi sante ñëpp ku bëgg a wér. Mhm. seetil Binta laay. d'accord léegi beneen bi ma bëgg ñu ñëw tuuti moom mooy ci wàllu jafe-jafe yi ba tey wax nañ ko léegi. ci beneen secret bi ñuy ñëw mooy tëju parce que euh, suñ na tëju dafa ëmb lépp rek du ma ñëw ci ay wàllu papier wala yooyu parce que tëju mooy bloqué loolu yëpp euh, nit koo xam ni lu mu laar day dëgër affaire bi mënta baax mënul am sax place bu baax wala mu daw booy bëgg dee wala mu bëgg samp dara yëf yi taxaw nga ni ma kooku day bëri na ci sax ci ñoo xam ne foog nga sampal leen pour seen affaire mën a baax. waaw loolu lépp xam nga lu koy waral. Mm-hmm. rabay yàq rek. rab dina la laaj sax aw nag. laaj la sampa ngay dof dof lu mu pekete la yàq la te doo si man dara ndax mu ngi lay gis mu ngi lay gis te yow gisoo ko te la mu la laaj nga ne doo ko def mu ne kaay maa la gën a dëgër boppa man maa xam lépp ginnaaw yàlla maa man lépp ginnaaw yàlla naa boole ko sa yëf ndax yàlla moo fi nekk su weesoo yàlla jinnee fi nekk raba fi nekk rawaana fi nekk soo dëgërantee moom boppam na mu boole ko sa yëf waaw. Euh, soxna bind moom Seydina Limamou Laye c'est-à-dire euh, secteurs yi mi ngi nekk entre Yoff léeg-léeg mu nekk Mbaaw mais Mbaaw dañuy faral di dégg ci foofu nga ni dama fa yor ay tuur ak ay xamb est-ce que mën nga ñu wax xamb dëgg lan la xam. xam ñu bëri lañ ko dégg te xamuñu lan la. waaw loolu ba ma ci laajee man dama si sawar ndax xamb dëgg xam nga lan moo waral xamb boo feebaree sawrab jàpp la mën na la jàppa laaj la nag axam tëgg rab mën na la jàpp laaj la bëy akam tëgg loolu woo waral binte maam Seydi bi ka maamam maamandooy jaañ laaje aw nag ma yuux sama yaay soxna kan baay jëndal ma ngandu nag jaru la noo daa mbaaw mooy sama cosaanal yaay maa ngi ci géej gi maa ngi ci jéej ji maa ngi ci géej gi maa ngi si jéeri ji maa ngi ci kër yi maa ngi ci tali bi maa ngi fépp loolu moo waral ñu defaral ma mbaaw maa ngi faa juróom benn ndaa mais nag télé du fa dugg filme du fa dugg kooku sekkereb yàlla la. ak ci loolu sax la ñu foree kay nga nii képp kuy wane ay xamb yaa ngi def loo xamul parce que nee nga Mouhamed des fois ma toog ci télé yi gis kuy def émission di wane ay xamb yooyu kooku boo ko seetaanee lam yor wérul ay xamb kenn du ko wane. ay xamba boo ko weeree mu mu la fàdda ray la yàq la tojal la ay xàmba sekkere la sekkereb jinne sekkereb jinne la tudde kenn waru ko weer bu fekkenteel bëgg nga jinne di la sol di la wan bégal ka li mu bëgga ubaat yëfam jox ka mu rootal ka jox ka mu naan boo paree tëj yëfam sa yoon nekku fa télé yoonam nekku si léeg-léeg ñu gis ne sax nga ni jàkk nit nga ni mu Mouhamed man gëm naa ko parce que ñu taxaw xam nañu nit bu amee rab boo ko xoolee rek xam ko nga ne ma ku am rab jinne dëgg moo mën a faj mais ku ko donduwul amuloo rab wala loo donduwul ci say maam comme ni nga ko tuddee munoo dara ci nit. danaa wóor. danoo wóor lu waay doon na mu dëgër danoo wóor ah Binta Baye Seydina dafa ñëw rek doon na nag maam Xargita Sàmba maam Xargita Sàmba moo jur aji Binta caw Seck aji Binta Thiaw Seck jur fi Mbay Faal Seyna Faal yooyu jamono ba may am 11 ans aji Binta caw di ma dugal ci téeméeri ndaa ku ne xam nga Alaaji Maada Seck ma daan wax rajo Dakar RTS ku ko xamul dégg nga ko mooy sama maam man lépp lu ma wax rek si yoon laa ko teg ci baatin laa ko teg si la laa ko teg ak fit ak fayda. ñu ñëw ci ñetti points yi ci émission bi parce que lu duuf ci nag bi xaju ci cin li première bi mooy am na lu ñu for ci wàllu soxla yi ba tey ci wàllu sport. dégg nañ ne xale yu bëri international wala wàllu équipe nationale jaar nañ ci yow kon nga ni ma xale buy tëw signé boo jaaree ci man bu ma la génnelee nga signé. xam nga sport. alalu jinne la. kon alali jinne boo ci bëggee siw faaw nga jëflante binta baay Seydi borom jinne yi borom rab yi binta maam Seydi loolu lu ñu dégg la ku bëgga a fubal bëgg am ndam si mbiri fubal dama ne la seetal binta laay bàyyi baay Seydi doomu soxna kan baay ak baay mbay faal sëtëb aji binta caw sekk baj gawel yoof d' accord euh, point boobu moom lu ñu ciy cof la rek parce que wàllu sport la yaa xam nga nekk international wala mënuloo am contrat wala nga nekk ci centre boo jaaree ci moom yaakaar naa mu faj parce que loolu lu ñu jot dégg la ci moom beneen bi ñuy ñëw nag mooy ci wàllu samp tey nga gis koo xam ne day xëccoo muy xëccoo la muy xëccoo mënul fexe ba jot ci. xam nga mbiri rab kenn du ko xëccoo da ngay xaar ba ñu dey la. mooy wàllum élection. yàlla suñu borom bu la joxee ñi mel. yàlla joxul binta laay nag yàllaa ko jox ak Seydina Muhammad di maam limaamu laay fii si jàmmalaay naaru naari yonentab yàlla bi Muhammad na d'accord euh, dernière question bu ñuy ñëw wax nañ ko léegi ci euh, doom ku na doom ni borom kër borom kër jigéen ñu bari tey dañuy am problème mu sëy wax nga ko am na sax kuñ ci gis koo xam ne dafa ñëw rek nga ne ma kii su ma ko sangul du sëy xanaa rab la rabay def loolu mën na laa téye ba ilaa yow mi doo am jëkkër rab mën na laa jàpp si sa njàng

Mm-hmm. may na ma ko yàllaay maye mm-hmm. yàlla suñu borom mm-hmm. day na ma si gàllaaju kaso jërëjëf Euh, yàlla suñu borom delloo ko ci gàllaaj ko su mbokk yi mu nekkoon euh, soxna Bintu maam Seydina Limaamu euh, fii mooy adresse yi mooy Yoff ak fi mu naan Mbaaw fa xam ya nekk donc yooyu mu ne fii am problème soo yegsee am problème bi am na fu mu la yóbbu xam sang beneen bi mooy numéro yi mooy affiché woon ci bas d'écran bi yow ñu bëgg a seetlu nga am jafe-jafe foo mënti nekk ci àdduna soo ko woowee mu saafara seen mbir di leen jox di lajee beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf